tatifire tuli janga yala na korkanjo fapambe lew tatifire umi janga jangi ma korkanjo fapambe lew tatifire umi janga nangi ma wax ngeen di gis muy ñëw noonu Pape Thialis Faye la la boss de Leewtoo TV ah borom Leewtoo production man daa mel ne DG Raptor la laal biir arène national Pape Thialis loo nar li musta am ci réew di kumba gaw kuy fëgg kuy fëgg waaye kuy fëgg voilà le maire la génération Pape Thialis Faye le boss de l'auto production le DG de l'auto TV ah ñu nuyu ko ah Mansour bonjour maaleykum salaam Ndeye Mbacke DG bisum tey ji ñu gis la fii ci arène national looroon bébét bi waaw dañ ñëwoon pour euh, déjà régulariser combat wu Tapha Tine Boy Niang donc pour préparer ko aussi préparer communication léegi kon Mansour dañ koy bàyyi mu dugg génn ñu gën a yaatal ci waxtaan bi incha allah léegi léegi ah mi janga yala lew do di fie o mi janga jangi fa pambe lew do di fie o mi janga nangi fa pambe ngeen jëf mbokk yi nuyu na leen bu baax a baax di leen dalal jàmm di kontaan si yéen wala ñu gisee fii ci arène national kenn warul laajte lan moo xew ki ñu fi àndal moom mooy borom Leewtoo production Pape Thialis Faye moo tëgg combat bu mag boobu di dox ci diggante Tapha Tine le géant di Bawol ak Boy Niang xale bi nga xamante ne bii fonde fondem la yor di seddale nee na ku nekk dana la jox nga naan ci kopp fonde bi tey nag dañu ñëwoon fii ci euh, CNG pour régulariser li nga xamante ne bii moom mooy combat boobu nga xam ne amateur yëpp ñu ngi doon xaar xam date bi kañ lañ koy bëre ñi ngi taxaw ak manageru Boy ñaa ak manageru ki nga xamante ne bii moom mooy Tapha Tine Père maa ngi lay nuyu di la laaj lan mooy sa première réaction ginnaaw bi ñu régulariser combat bi. sama première moo daal sant yàlla ak yonante bi di jullu ci bi sallallahu alayhi wa di gërëm di gërëm waa Bawol yëpp nag di woo waa yëpp nag. autorité Bawol yëpp nag maa ngi leen di woo gu nga xamante góor ak jigéen mag ak ndaw yëpp ñu jàpp ci combat bi mm-hmm. waaw mm-hmm. yàlla may nu ndam ci bisu bu soobee yàlla. Mm-hmm. dafa mel ni da ngaa a woote ci combat bi. waaw waaw noonu la parce que nit ki da nga koy teel a woo da ngay teel a wax moom teel koo gis mu teel a ñëw. ñu teel cee jàpp. waaw waajtaay bi yàgg na euh, naka ngeen ko dunde non ni ñu ko dundee bu nekk jaar na fi. combat bu nekk jaar nañ fi déplacé nañu def nu lu nekk combat bi daal amul dara lu luñ ciy tiit amul dara luñ ciy xalaat itam. naka ngeen koy waajale xanaa ñaan yàlla àgg ci jàmm yàlla may nu dàmb rek. ngeen war a jógee fi nga xamante ne bii moom mooy Bawol fekk si Boy Niang buntu këram muy fii ci biir arène nationale nga xam ne moom day génn Pikine rek dugg arène nationale est-ce que loolu du nekk du nekk pression ci yéen. non du nekk pression ci noonu que mbër mu nekk daje na donc moom. am na mbëri yoo xam ne ñëw nañu fii dëkk biir Pikine ñu duma leen daan leen yóbbu leen ñu ñu delluwaat seen kër. kon loolu leen bëgg. duma ko daan ko mu delluwaat këram. duma ko. daan ko ci kan kàttan yàlla. boo ñaa ngay waxal de. boo ñaa la mi ngi nii taxaw. Burxaan a ngi nii. mu ngi lay dégg kay. mi ngi nii noonu mhm. jërëjëf Père Mbaye Thioune euh, Père Burxaan ñu ngi lay nuyu. ñu ngi xam baa xam nga ne man dama laa fan maa la gën a fa yaa ngi si jàmm. sant nañu bu baax. sa première réaction. gannaaw bi ñu régulariser combat bi lan la. onze bi kalimaati laay taamaati min sharri maa xalaq ginnaaw bi nu sante yàlla julli ci Baay Laay ak Seydi ñu ngi nuyu ñëpp jërëjëf Leewtoo parce que à chaque fois bu situation doyee waar am nañu stratégie ak xalaat bu tax ñu mën ko régler tey jii combat bi ñu bëri yaakaaroon nañ ni duñ ko sax bëri ci saison bi. mais alhamdulilah rabbil alamin bi nga xamante ni am nañu solution ba tey jii ñu régulariser ko pour le huit août. di ñaan yàlla bés boobu nag bés boobu nekk bés bu ñuy favoriser ñun ñu gagné ci combat bi. père dégg nga père Mbaye Thion li mu wax léegi. waa xam nga sànq dama dégg nga ne ko ñoo da ngeen di jóge Bawol fekk si leen fii euh, Tapha Tine Medina gi la nekk mm-hmm. digganteem ak Sicap fa lay jaabante kon mook booy ñaar ñoo bu fekkoon ne dañuy wax bawal kay ñoom ñaar ñoom ñëpp ay jógee ndoo ñaar ñëpp dañoo am cër bawal jóge bawal wala ñoom ñëpp ñu jógee Dakar ñëw fi bëre si boobu daal bëgg nañu nit ñi xam ne làmb ay nit de moom euh, euh, warul nekk euh, loo xamante ni mën na am coow mais mënul am problème làmb nag bés boobu dañu bëgg ci amateurs yi mooy kenn ku nekk nekk sa morom moroom ñu jëndalante ay boisson di naan ay kafe seetaan combat bu neex parce que ñaari mbër lañ yoo xam ne yu fair play lañu ñu discipliné lañu kon amateurs yi nañu xool ni ci ñoom la ñu war a copier dootul combat boo xam ne dañ koy seetaan ñii di sànni ay chaise ñii di yuuxu wala def affaire mais fête la war a doon boo xamante ni ñëpp dañu war a toog di teralante ba bu ñu génnee ci biir di discuter ci seen i seen seen i seen i mbër mais mu bañ a nekk loo xam ni day ànd ak violence wala yu mel noonu yooyu daal est-ce que nekkul da ngay baab non parce que combat boo boo waree seetaan combat bu neex jarul ngeen di xuloo yéen ci kaw tribune bi dee yàq ay chaise ak yu mel noonu ni ñu bëgg bi yoon mooy nit ñi nekk ay supporter nekk ay amateur toog di jëndalante ay café di jëndalante ay boisson ay turandoo sax xaj seen biir que ñuy war a toog di saagante ay ndey walla ñu parce que ñaari mbër yi dinañ leen ko won ci nañ leen won ni ñoom duñu ay ennemi dañuy nekk di liggéey mais du ñu nekk ay ennemis yoo xam ne dañu ñëw di waxante lu bon te sax ñoom jikkoowuñu loolu kon nag supporters yi ñuy wax dañu bëgg ñu ñëw en masse même signature contrat sax dinañ leen defal ay facilités yoo xam ni dina leen permettre ñu ñëw seetaan lépp ci biir jàmm ci biir waxtaan ba kenn ku ci nekk la nga xalaat ci combat bi nga am ko ci. message bi yaakaar naa foor na te amateurs yi dinañ ko dégg ana ana Boy Niang. Boy Niang mi ngi fi. mi ngi ci lan. takk daalam ana ana ana am un très grand combat. ndax muy bëri c'est un c'est un très grand champion. xam nga nit mënuloo gagner combat te xamoo valeur combat bi. xam valeur combat bi moo tax depuis buñ ko waxee ba léegi booy ñaar du mbër mu ñuy wax damal entraîné ci toujours moom mi ngi ci ay entraînement mais adversaire am aussi dafam ay capacité yoo xamante ni li tax ñu mën leen a boole parce que dañu nekk ñaari mbër yoo xam ne kenn ku si nekk doo jaaxaane caaxaane ay combat yaakaar naa ni daal combat booy ñaar Tapha mu nekk na combat bi nga xam ne dina bokk ci combat yi yi yoo xam ne dañ koy fàttaliku. aaye ba daanu na ku doon laajte faali ngoye ngi nii ñi doon xaar ñu régulariser datu combat tafaatin ak Boy Niang ñëpp mën nañoo jàpp ne incha allah le 8 août danañ jàkkaarloo fii ci arène nationale euh, bu ci yàlla àndee Thialis yow yaa tëgg combat bi ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay Babacar di nuyu équipe bi ak presse bu fi nekk yëpp donc di santaat suñu borom. donc di nuyu aussi Maxime ak ki ñu toog taxawal nii di mbaay parce que ñun combat bi peut-être amuñu wan date date bu ñu waroon jàpp mooy tegu ko xëy na peut-être premier janvier. mais gis nañ ni am na suñu benn mbokk promoteur bu am date boo xam ne mën nañu ko sede mi mooy donc moom ñu koy gërëm aussi parce que moom mu dem ba am datam am grandeur jël datam jox ñu ko ndax combat bu ñu am bu ñu am mu nekk combat bu mag moom mu mën ñu sede datam donc loolu dañ ko ciy gërëm. donc moo tax moom aussi ñu ko ci gërëm bu baax di wax ni xëy na euh, ñun ñëpp ñoo bokk activité bi donc bu ñu amee suñu bokk promoteur boo gis bu gis ni moom tatam mën nañu ko séddee ñu mën si tëgg donc dañ ko ciy gërëm donc si gërëm aussi ñëpp bonne volonté si nekk jàpp ci yëpp ñu ngi ciy gërëm donc di ni date bu ñu jàpp mooy le huit août incha allah rabi si arène bi waaw. mu mel ni le huit août presque ñëw nag bu ñuy xool ñaari weer moo ci des mu mel ni kon mën nañ jàpp ne dispositif yi nga war a jël ci combat bi yëpp jël nga ko jamono bi ñu toll. waa jël nañ lépp ah parce que xam moom je pense que dootuñu ko jàng. donc jël nañ dispositif bu yàgg. donc lu des mooy commencer communication bi te incha allah que combat moom jaay na boppam ba pare. donc lu des mooy def communication gën ko jaay incha allah je pense que dina nekk boo xam ne amateurs yeeg ak sénégalais yëpp dinañ ko fàttaliku incha allah ba bu ñu si yegg bu si tolloo. laaj naa ko ñaari managers yi sànq. xaar bi yàggoon na ci ñaari côté yi est-ce que euh, ñaari ñaari ñaari manager yi sëkkataluñu la ci dañoo soxla suñu mbër bëri. non xaar xaar xaar xaar mënu si am xaar mënu si am parce que moment buñ koy tëgg bu ñuy taxawal combat bi si Covid la. et ba léegi nii ba ñu commencé euh, permettre nit ñi di bëre mars la commencé donc mars ak léegi ma tagul deux weer ma tagul deux mois. donc ça veut ni du problème kenn kenn mënuñ teg pression parce que man ku ma xam-xam ne man doomu aadama mënu ma teg pression mais damay def li nga xam ne moom moo dal sama xel xëy na ñoom am na leneen nekk si suuf lu ñoom ñu bëggoon ñu tëgg mais ñun dañuy tëgg si moment boo xam ne leer na c'est un moment opportun yàlla def na am nañ ko xam ne tey suñu mbokk promoteur la am datam mën a si baaxaa mu ñëw jox ñu date boobu aussi dañ koy tëgg parce que bàyyi combat mu yàgg aussi amul benn intérêt donc loo ko mën a gaaw a tëgg def si une bonne communication et que boo xam ne aussi jaay na boppam donc soxlawul ñu koy mu sori donc loolu li ñu si mën a mooy di remercier Mor Mbaye mi nga xam ne moom moo am datam jox ko donc ñu koy remercier di ko wax ni li mu def nii mooy defar làmb sa làmb lii rek moo koy defar. wax nga ko sànq combat bi jaay na boppam ba pare mais bëggoon ñu xam euh, naka nga koy waajalee ak lan lu bees nga nar andil amateur waa innovation rek xam nga làmb moom chaque jour innovation la donc incha allah dinañ xool ñëpp en tout cas bu bu ñu ubbi la donc képp ku si mën a participer indi sa idée sa xalaat pour que mu nekk loo xam ne pour askan bi la ñu on est preneur donc euh, làmb ji incha allah dinañ def innovation ba xam ne daal dina neex Sénégal yëpp incha allah kàttanu yàlla. côté promotion commencé nga wala commencé. waaw incha allah dès lundi dinañ si jublu donc dinañ si donc ñu ngi woo aussi suñu mbokk promoteur yëpp donc euh, commencé ko par Pa Abdou Fall président bi. donc ñoom euh, Abdoulaye Khak Ndiaye ñoom Dieye ñoom ñoom ñoom Fallou donc bu ma limee damay juum ba si moon mbaay bi donc ñoom ñëpp ñu wax leen lii seen la donc promoteur yëpp ñu ngi leen di woo ñu jàpp si combat mi promoteur lu simple ak promoteur lutte avec yëpp. foo toll ak sponsor yi. waaw sponsor aussi je pense que ni amul problème incha allah dinañ si taxaw donc euh, dinañ wuyu si incha allah si kàttanu yàlla. lan mooy kàddu mujj waaw kàddu bu mujj ji mooy mooy d'abord remercier aussi Jador bi nga xam ne mooy le premier sponsor boo xam ne tey jii signalé wu na donc euh, Jador ñu ngi koy remercier di remercier Aziz Ndiaye bi nga xam ne moom moom moom Jador donc moom moo njëkk nag pro sponsor bu ñëw wuyu si te incha allah ñu ngi koy remercier di remercier ñëpp kàddu bu mujj mooy wax mbër yi ak euh, seen fief yi que ñu préparer combat bi te que aussi ñu wane discipline fexe ba combat bi nekk combat boo xam ne donc day des ci mémoire Sénégal yëpp incha allah. gisoon nan nga def benn sortie euh, Leewtoo TV le soir Boy Niang seet si la est-ce que mën nga ñu may ci li ngeen waxtaan woon jour boobu. waaw loolu loolu loolu waxtaan la xam ay partenaire moom mënuñu xuloo ñun ñun promoteur la ñoom ay mbër lañu ñu sommes tous des partenaires donc kenn mënu dem bàyyi sa morom donc bu amee jafe-jafe wala am incompréhension laaj na kenn ki mën a déplacer seeti keneen ku ñu toog waxtaan si cadre boobu la ñu ñu waxtaan et que moom aussi ma comprendre ko mu ñaan ma ni moom dafa am beneen combat que nañ ko si jàppale ba moom mu mën a bëre ñaari combat yëpp du am jafe-jafe. loolu moo waral tey jii aussi kii aussi ñu ko jàppale kii jàppale ñu noonu jox ñu dakam pour que moom aussi combat boobu mu am mu muñ ko après muñ ko bëree si même saison bi. donc loolu la rek jàppalante la daal euh, làmb moom ñu ñëpp ay ñu acteur la ñu ay partenaire lañu dañuy jàppalante mais pas pour indi ay problème donc loolu moo nekkoon visitam si man ñu waxtaan si ma nangul ko ko na ko bu ma amee disponibilité aussi am date boo xam ne baax na mën nañ ko si tëgg te du la gaañ te du ma gaañ incha allah dinañ ko def yàlla dogal na ko ba amee promoteur bu am euh, bu am datam ñëw si baaxam jox ñu ko donc mooy li mu dem aussi tey am na ko. kon rendez-vous le 8 août. incha allah rendez-vous le 8 août arène nationale. waaw dëggante Sidi moom fu mu nekk nii mënaguñu wax parce que xam nga lamb lamb dafa am lu bëri si laxasu sponsor yi am na aussi média ak presse donc am na partenaires yoo xam ne ñoo am exclusivité wuy liggéey ñoom donc loolu yëpp incha allah dans la semaine prochaine bu ñu ci pare dinañ ko mën a presse wax nañ lañu mën a fas yéene liggéey ak presse bi yëpp incha allah mais jàpp leen daal du nekk loo xam ne dañuy dañuy dañuy beddi presse bi parce que ñoo presse ay partenaires lañu donc euh, on a besoin de la presse presse la besoin de nous incha allah aussi dinañ fexe ba presse bi ñoom ñëpp gis seen bopp. kon mën nañ jàppane ne di ci ànd ak presse bi incha dinañ si gis seen bopp mais lu ma ne mais dina am tànn aussi presse yi am exclusivement ñoo def activité bi ñu xam ne am renommée bi nañ fexe ñoom ñëpp ñu am ñu ñu ñu ñu sentir seen bopp ci làmb ji waaw incha allah. merci beaucoup Thialis d'accord merci jërëjëf. Mor ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay euh, di nuyu kilifa yi fi teew yëpp tey. Eh, di jiital ci nuyoo bi Pape Thialis di nuyu sama tonto Max Mbargane sama tonto Bourkhane ak waa CNC bi yëpp Ndiame Diop vraiment ñëpp maa ngi leen nuyu di nuyu axlu làmb di leen nuyu itam di yéen waa si bi sa diggante ak Thialis lan la. non sama diggante ak Thialis jàmm rek la parce que man dama nekk nit koo xam ni vraiment man promoteur yëpp laa amal jàmm man promoteur yëpp samay nit lan ba mu ci kenn xaar ma yàlla. muy association bi ma nekk ak ak beneen ak beneen ak ñi ci bokkut ak ñëpp ñëpp samay nit lan mais date bi nga gis ma ma jox ko caalis lu lu ma war la ndax nit bu fekkee ne da nga da nga jël benn dat muy le huit août euh, ma waran ci tëgg ay combat moom mu tëgg combat bi nga xam ni moo dox ci diggante tafaatin ak Boy Niang nekk combat bu mag macha allah xëy na sax combat du ndaw parce que combat combat la rek mais combat yooyu wax dëgg yàlla comme ñun suñu combat man ko mën nañ ko déplacer yóbbu ko euh, Ibamar moo tax ñu jël date bi jox ko ko ci xol bu sedd guyu ndax tam euh, lam moom jàppalante rek la. àdduna jàppalante rek moo fi nekk. ca euh, ñun ñëpp benn lan promoteur yi ñëpp benn lan kenn wërta xool sa morom di nekk jafe-jafe rawatina moom Thialis mi parce que ba mu duggee ci lam ba léegi amul te kenn xaar ma yàlla. kum romb dalay jàmm la jox di jox la ñaari loxo nuyu la respecté la kon na kooku bu demee ba yàlla dogal moo xaw a am tuuti difficulté date ñu am date boo xam ne war nañ ko ko man a jox te du te du du du du wàññ suñu suñu suñu organisation dara suñu événement dara dañ ko koy jox man maa ko jox ci xol bu sedd guyu ci ferte yaa ko ko jox ci xol bu sedd guy muy geste ba nga xamante ne bii amateur yu bëri dinañ ko saluer di geste ba nga xamante ne tamit amateur yu bëri danañ ko danañ ko rafetlu amul lenn la nga xamante ni bii condition boo ko tegaloon bi nga koy jox date date non du du ma doo ko tegal benn condition parce que nit ki tamit man dama bi ma ko koy jox yàlla mi tim xam na ni dama fekk may añ bi ma wooyee wax ma ko dama ni moom mii dama ni jërutoon sa ngeen may woo man ngeen maa woo rek ni ma nangam laa bëgg ma defal leen ko kon jërutoon may déplacé wu di ñëw ndax man dama nekk nit koo xam ni man taaliba laa am na lu bare loo xam du ma ko man mosuma am ak benn promoteur xaar ma yàlla yàlla loolu la dogal ku nekk nag ak ni la yàlla bindee man noonu la ma yàlla bindee eh, yàlla dogal nag moom mii nag wax dëgg yàlla daaw rek sama benn naataango tudde na ko làmb mu def ci lam ci war a def lépp te loolu lépp ak mbaaxte la muy Sambay Fall di sama xarit bu ba bëccëg ñooy ànd xam nga am na act yoo xam ne boo xasee commencé di ko def ci ci aw askan wala ay ay xarit leneen loo fa bëgg bu la jafee war na noo xoolaat ñooñu moo tax bi mu bëggee date bi ñu ne nan jël date ma ne naa jël date bi jébbal ko ko ay kilifa woo ma moom mu bokk ci. maa ngi gërëm nag euh, promoteur yëpp di jiital ci gërëm li suñu président Pape Abdou Fall maa ngi koy jiital ci ngërëm li di gërëm Aziz Ala su sponsor bi nga xam ne moo ko moo moo koy gungee ci làmb ji ñun ñi ñëpp moo ñuy gungee sax wax dëgg yàlla parce que nit ku baax la bàyyiwul làmb mu soox saa bu bu boo nee Aziz bàyyi na làmb jour boobu la gën a jàpp làmb te lépp ak mbaaxam la man naa téye xaalisam di ko dugal ci leneen mais da koy dugal ci làmb ngir jàppale làmb jàppale euh, euh, promoteurs yi jàppale mbër yi ñoo ngi koy sant di ko gërëm di gërëm nag euh, promoteurs yi yëpp du lim nag ku lim juum di gërëm ménager yi ndax samay yaay rek ñoo fi nekk ku ci mel tonton Burxaan mi ku ci mel tonton Max ak ñëpp vraiment ñoo ngi gërëm ñëpp di gërëm prince bi di gërëm waa seen CNG ndax wax dëgg yàlla biñ ñëwee yom njàmmee yombal nañu ko yombal boo xam ni danoo ñëw rek amul discuter ma signé won ni man maa jox maa joxe sama date def sama signature ci xol bu sedd guyu kon nag loolu maa ngi ci am fierté di ko ñaanal moom it mu organiser ci jàmm lépp lu mu ci bëgg sunu borom defal ko ko ci dara darajey Seydina Mohamed jërëjëf ñu gis la yow tamit nga initier benn tournoi benn tournoi nga xamante ni bi yu am solo la. Mm. tuddee ko weekend. Mm. Euh, xam sa xam sa. Euh, xam sa maire weekend mbapat xam sa maire. weekend weekend mbapat xam sa maire. xam sa maire moo la ci dugal. waaw weekend mbapat xam sa maire boo gisee ma ma ma ma ma koy organiser xam nga làmb moom dan ne ku yokkul yaa yi ca yaakaar naa huit ans boo ko nekkee ci làmb chaque année nga dagg licence mosoo année balance kooku yaakaar naa bokk nga ci làmb kon nekkutoo gan. weekend mbapat boo gisee ma kii ko damaa jël cent pour cent yi jëluma par écrit parce que écrit boo jëlee par écrit day bari damaa jël cent pour cent yi kenn ku ci ne indil ma cinq mbër ma koy def chaque samedi ci ci gox yi gox bu ne dama fay tëgg mbappat ci kàttanu yàlla chaque samedi ci kàttanu yàlla loolu mooy weekend mbapat xam sa maire gox boo dem maire bu nga koy tuddee mu mu mu mu mu mu mu recevoir euh, euh, équipe am par équipe la daal par équipe la équipe bu recevoir sa maire lañ koy tuddee yeneen mbër yi ñëw par quatre par quatre quatre équipes ñooy compétirandoo waaw ñu def finaal bi macha allah loolu bu ñu ko defee defuñu ko ngir dara ndax am na xale yoo xam ni parce que ñu ngi ko def ci quatre-vingt-dix kilos jëm suuf xam ñooñu ay xale lan ñoo xam ni dañuy mënuñu am ay combat yaa ngi dégg parce que làmb ji xañ na promoteur yi dolleeku nan mais taxul tamit mu doy bu sañoon promoteur yi dañuy gën a bari ndax xale yi ñu ngi entraîné du réewun ba tax na daal vraiment ñu yokk làmb daal lu lu yokk làmb daal moo tax ñu def loolu weekend mbapat xam sa maire ñu ngi ci woo Sénégal gépp nag la le 19 juin laa ko bëgg commencé maa ngi ko incha allahu rabbi maa ngi ko bëgg commencé mbaaw euh, war ko tudde monsieur le maire Ablaye Pouy ñoo ngi ko ciy xaar moom it moom mooy mooy ubbi làng gi daal mooy ubbi carte bi Ablaye Pouy maire mbaaw jaajëf euh, di rek mbokki internet yi combat bu mag bi nga xam ne ba mu taxawee ba léegi coow li bëri woon na ci kañ lay am ak kañ lañ koy régulariser yàlla dogal na régulariser nañ ko léegi diggante Boy Niang ak Tapha def nañu jàkkaarloo yu bëree bari bi ci mujj Joal la toj nañ ko coow li bari lool ñi naan dana am ñii du am waaye yàlla def na régulariser nañ ko combat bi ma nga waroon doon le 8 août fii ci arène nationale di gërëm nag lool. Mor Mbaay mi nga xam ne moom moo moom date bi bokkoon ci ñi nga xam ne saison daaw dañoo dese woon combat te ñoo ñoo amoon priorité jëkk a jël date suñ paree kuy jël du ko jël mais ci baaxam bi cali soxlaa dat bi tegu ci benn condition daf ko ne yow suma frère nga suma xarit nga boo soxlaa date bi dama la koy jox moo tax sax bu nit ñi déggee ne jël nañ datu la 8 août dana leen jaaxal ndax même ñi ñi njëkk a ñëw ñii 22 août dañu jël ñii jël 15 août ñu ni jël la 8 août yàlla def na régulariser nañ ko léegi kon rendez-vous bi Boy Niang Tapha Tine le 8 août lay doon kii moo ne woon càpp kii mooy càppaacoli kii ne ñor tab bi euh, kii ne saakaande ñi doon wax kañ lay doon rendez-vous la le 8 la ñàkk ko teewlu dara wóoru ci ñu ànd ak bu mag bii di calis ndax moom yàllaa def boolewul daraa ki wax mais lu muy def rek da ciy dem ba jeex kon ñaa ko dara wéeru ci rendez-vous bi le 8 août la fii ci arène nationale Boy Niang Tapha Tine officiel na jërë jëf. Leewtoo TV umi jàngano gi ma ngor ka ju fa Bambey